386 45 69 ña nga foofu ca Touba Daara Khoudous 9h ci suba la ñuy ubbi ba 20h ci ngoon un transfert de argent muy wari joni joni ak ria képp koo xam ne si ne bëgg nga crédit yi dañuy jaay orange ak tigo ak expresso waa kër soxna astu jaxate daal di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassir mu yàgg fi lool te wér ak waa mint service léppay baax baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi bilaay mooy baadoola bilaay yaay baadoola bilaay mooy baadoola waaw maa nga ca yoon wa ñu ngay ndogu lan ndogu lijjanti ko ñu dem fan laa koy lijjantee. ah di yéen fi waxoon parité maanaam de la femme tib tënk góor ak jigéen ñooyam kon kay su ma amul tey jii yaw yaa koy lijjanti. ma ne ñu jaay man xaw ma fan laay jaar man ba lijjanti. ma ne fan ma ne ma fi waxoon ñaari loxo mooy takk sër mooy takk tubay ginnaaw sama ñaari loxo yi mooy takk sama tubay ji sa ñaari loxo yooyu takk sa sër boobu seere ko. ñu jaay man fan laa koy seeree. dafa mel ni déggoo ma de lu ngeen fi delloon wax góor montor la jigéen ay arloose nee naa ŋàll. man ay man ñu jaay man fu ma koy lijjantee kon da kenn du kon bu ndogu kon kon baax na. booy eh eh yow yow yow yow yow da ngaa dof wala loola jot. père lan la. ah yow ci weeru koor la ñu ne di. léegi nag. weeru koor danañ ci nekk digg bëccëgu ngara kàmm nga ni fàng daj ci sa garab ak sa sées dégg nga maam di lekk sa banaan. père wóoruma amu droit lekk sama banaan. waaye boo wóoru doo làqatu. ban làqatu. waaye yow man man man man damay man man gént wala wala wala. waaye booy booy banaana waroo koo lekk waaye banaana dafa nooy. balaa dafa nooy neex a jàllale hmm, neex a sax xam yi eh jàng nasaraam waaw lan la woon dimbali ma fii Alsaan Badiane Ndiaye Diop père loolu mooy lan père yow xoromu nga de euh, boo ko gisee mooy Alsaan yam daa amoon ñaari xarit kenn ku tudd Alsaan Ndiaye kenn ki tudd Alsaan Diop bi mu amee doom nag mu ne da leen di boole tur yi def ko Alsaan Badiane Ndiaye Diop. jóob di ci Alsaan njaay Ndiaye Diop. waaw Alsaan Badiane Ndiaye Diop waaw dimbale ma ci. waaw dimbale ma ci rek ci suuf nag la ne ci suuf ci suuf la nekk ci suuf da nga koy xool ci ci ci ci suuf lay nekk. ci suuf nga koy xool ci suuf kii bi. xam naa ni man dafal ndànk sama njàng sori waaye biir na ma ni moom moom eh, mi eh, mi nga mi nga non. mais. <laughs> Mm. père yow lii lan la. sëñ Bawde yaa baadoola. bilaay mooy baadoola. sëñ Bawde yaay baadoola. bilaay mooy baadoola. ñëpp war wóoroo. te yaay digle koor gi fii. ci koñ bi. boo xëyee sa kër. koor ka fay tàggoo.